bismillahi rahmaani rahim wi maa ko jagleel Baay Faal bul songu bul laal daa sotti ko xaal man xaali Baay Faal bi mooma jooyloo songu bul laal daa sotti ko nit koo fi yen kuur wallahi day gor buy mbëkk këy diir bu leen xëngëm loo tuddëm nga yàlla azza wa jalla ak baayu lalla day ga jëdam loo ca paspasam ba ak gis-gisam ba lay teg bëtëm ba jëm fañ ko jëmloo du teggi ab taal bu sotti ko xaal giñ naa ne bàyyi faal dañ ko liggéeyloo bu yàlla woote doo gis mu wuute ngëm lañ ko teete xëy fañ ko xëy xëyloo du xàcc lu së Cheikh Rafal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërë jëf wasalaam

ñoo xamante ni rajo yi ba borom liggéey bu dul jeex yaram bu dul feex sopp maam Seex Ibrahima Faalo fu mu gën a mettee day pikk day peel di wuy ji ay tool day gaja dam lool buñ koy liggéeyloo gor ba ca xel koom jëleen na cay góom te faalewul góom goom du ko toogloo fanaan ci ay mbaar xëy góobi angaar kile di jàmbaar fal yaa ma wayloo di jébbaleeg jur ak doom ya ngay jur mbër yen fi daa cir yaa leen weddam loo araam na paaleen na yoo la neen yow seeni teggiin man mooma bég loo di sukka kay boof farfeete woo suuf di leele tey xiif lëf du la rëyloo nee la naam faal kañ naa la yow faal man xaali baay faal bi mooma jooyloo nee naa la naam faal kañ naa la yow faal man xaali baay faal bi mooma jooyloo jërëjëf sëriñ Tuubaa jaarama seero faal